waxtaan ci cinq jàngoro problème première mooy problème bët deuxième dana nekk euh, ndoxu siti troisième dana nekk euh, hémorroïde quatrième dana nekk infection ak nerf sciatique la leen lañu bëgg ñu waxtaan incha allah première feebar bi mooy problème bët xam nga feebar bët day bari façon am na bëti xale yi kafe yi jooy am na bëti yu fulu di xasen boo am yeneen garab mu kalma boo yàgg mu digaat encore boo yàgg <clears throat> am na mu jul katara katara boo nang da nga xool sa butu day fulo doo mën a gis li sori xanaa suba tel wala guddi sa gis day tane wante nang génn tàng rek yow doo mën a tëgg eh, li sori yi mooy mandare katarak lu fulu mel ni asamaan nga gis mel ni neige nga gis sa kanam mooy katarak boo demee bu katarak formé rek lii yow li nga gis mooy lumière rek nga mën a gis lumière wala torche yooyu doo mën a gis dara lu fule lu weex kese nga gis sa kanam comme ko am na katrak boo ñëwee bu ñuy dëggante ci saa si la ñuy faji nga njibi sa bopp boo tey la sa sa loxo indi sax bu ñu dëggante bu ñu jóbu ci saa si la ñuy faji nga njibi incha allah encore eh, benn feebar bu mooy deuxième bi mooy glaucome glaucome tàmbale bi boo jóg bitig bi dugal néegi néegi day leen den tuuti bu yàgg mu soog a nga soog a gis li ma tàmbalee glaucome saboto day leen dem ndànk ndànk encore Eh, boo dem eh, glaucome boo dem bu fermé mam mun na ma ko faj incha allah munu kenn musu ko mun mënu ko faj sax glaucome boo dem bu fermé li laa boo xam nit wante cataracte bu dee gisul dara dara man nañ ko faji ci saas incha allah mu gis bu kattan yàlla deuxième mooy ndoxositi ndoxositi barina na mooy ndey feebar yi ndoxositi commencé am yeneen sa yaram day xesen yaram day tàng boo dee boo yaram bu dee sa yaram day tàng da ngay loos boo di sa yaram day jeex encore yeneen sa suufu tàng day tàng di cram yeneen sa diggante baara yi am li weex mel nii laal ma xam boo boo ko laal mu am xet nii tuuti sa diggi baara tànk yi yeneen guddi da ngay génne sa tànk yi ci lal à côté nga mun a tëdd guddi lay gën a sonal la mooy eh, suufu tànk yi tànga di cram sa yaram day jeex yeneen encore ku am ndox siti chronique boo yàgg rek eh, day julu hémorroïde yeneen pu taap taap taap yam sa yaram sa yaram yëpp yàqu bari na ndoxasité bari na façon bari na bari na yeneen sa karam day roos yeneen da nga am picc tuuti commencement bi mu yokkoo rek mu yokkoo rek bu mu ñëw jël sa yaram yëpp yàqu ko ku am ndoxasité lu mu muntu mel rek mën naa la faj incha allah ku am ndoxasité boo yàgg tàngoor yaram bi gaz bi nekk sa biir yaram day joxola faible sa ndox góor bi doo mën a am doom wala mu joxola faible sexuel encore ci kanam dañuy àgg fa incha bu kattan yàlla ndew su ne day dem julli hémorroïde hémorroïde li ko def mooy hémorroïde commencé ma sa day jooy kurr bu nu ti toog sa wet sax day dégg sa day jooy kurr encore nga am xam nga doomu aadama euh, daa ngeen dëkk añ reer ci journée bi da ngay lekk trois jours normalement da nga war a génn benn yoon boo gis génnul da nga xam da nga am commencement ma hémorroïde képp nga xam ne gis si yow am na 2 jours wala trois jours demul toilette xam nga commencé nga ma am hémorroïde boo yàgga say day seere sa yaram bu tàng di tayal pour pour problème la pour jóg xëy dem liggéey problème la sa yaram day diis bu bu seere bi yàgg da am bopp bi métti bopp bi métti toujours mu ngi si yow dem di diggaat rek encore bu seere yàgg dem douche bi forcé douche bi mu indi mu naaj ci deret walla mu indi sa suufu day saf bu dee bu bees la boo bu forcé du saf sa day saf mel ni kaani boo ñemee dem douche sax sa su mel ni sa suufu day tëju encore am na benn façon dañ deret am na benn façon picc bi la su suuf boo raxasee sa bopp da koy sentir su am na benn façon encore hémorroïde eh, boo boo dem toilette bu parent yi baal ma boo yow yaa boo raxas ba pare yow yaa jël sa loxo dellu ko ba mooy ne mooy dernier hémorroïde boo boo ko amee du lu sax boo paree yow yaa ko dellu wante day jeexal day naan sa yaram hémorroïde boo dem mu ko am na benn hémorroïde boo foiree boo foiree la ci nit ki. daa nga gis sabur day daw rek li nga lekk da ngay lekk lekk bi lekk bi nga dem toilette du du changé sax boo foiree sa sa biir problème sa biir buti yi ci biir da ngay dem dem dem douche ci si lekk bi du changé sax bii mooy hémorroïde bu coride bu danger bi mooy boobu hémorroïde day jaaxaloo nit yi saa ku ko am hémorroïde boo yàgg boo dee góor nga da nga am faible sexuel ku am hémorroïde incha allah bu kattan yàlla danaa la faji nga tàgg ak moom li mu munti doon rek eh, ka trem bi mooy ñu ngi dem infection infection am na si jigéen am na ci góor ñu ngi furee tàmbale ci jigéen ci góor góor infection da nga gis nit yi baal ma sa diggi tànk yi day xesen guddi lay gën a solo boo simi pour tere rek am nga problème day xesen da nga xesen bu bugg gaañu sa bopp guddi lay gën a xesen nit yi baal ma nga gis sakara bi day day dellu bu tuuti mel ni bu xale encore da nga benn infection bi boo dem toilette forcé toilette bi da ngay si man yoo génn mel ni ndox ñëw sa kanam bii mooy benn infection bi ci góor yeneen sa suuf nax yëpp day xesen du ñur bu couleur bu changé infection ay sabab day yàq euh, góor ndox mu nekk doo mun a nekk am doom ku am infection bu dee góor nga boo yàgg rek da ngay gis da ngay gaaw a boo am rapport rek da ngay gaaw daanu parce que sa kër sa sidit day foire yóbbu doole bi doo mun a am kattan sax da ngay tere sa jag sa sa soxna mel ni ñaare gul des fois da nga ne da ngay sonn yaram bu miti doo ci mun dara loolu mooy infection ku am infection bu kattam ñe la bu dee joxanaa la garab ay fan yi bi gàtta gàtta da nga tagg ak moom incha allah eh, lu toppa ci infection mooy néew kattam problème góoru bari naa am na yeneen doo ci mun dara ci jigéen da ngay tëdd sa ja sa ji sa jabar mel ni ñaaregul am na yeneen boo defee benn semaine doo ci mun am na yeneen boo ko defee rek même pas une minute da ngay agité da ngay daanu yow pare nga am na boo pare pare sa fi mooy rëf sa fu daw rek réseau bu dem doo ci mun dara am na yeneen gaaw daanu mooy problème mun na say saay gaaw daanu nga saay bugg a rek nga gaaw daanu encore lu mu minti mel. ci lam néew kattan mooy sa problème wala da ngay gaaw daanu wala doo ci mun dara bu dee judduwaale agamam bu dee am na vingt ans yow wala lu ko ëpp bu kattan yàlla bu ñuy dëggante incha allahu laala wax nit ki da nga am li nga bëgg soxal dana sedda da nga tàgg moom bu faw incha allah bu kattan suñu bor lu mu munti mel. da ngay gaaw daanu da doo ci mun dara boo affaire bu du dëgër du taxaw wala da benn rek nga mun doo mun a def bugg a def ñaar doo ci mun lu mu muntimal ci ak pour langoor bu sooba yàlla dana la faj ku ñëw fi incha allah eh, ñu ngi dem ci neer neer siati da ngay si yax yi métti yi boo jóg suba teel pour dox da ngay gisi ci nit ki yow doxa tuuti taxaw il faut nga taxaw bu yàgga ndànka ndànk pour nga soog a mun a dox normal comme nerf sciatique rhumatisme bu sooba yàlla boo ñëwee danaa la faji incha allah nga tagg ak man benn feebar am na benn feebar cur feebar mag la mooy mooy prostate prostate am na ñaari façon benn bi da ngay dem tuur ci toilette nga yàgga force tuuti lay ñëw ndox bi tuuti force tuuti ma ñëw boo ñëw mu nga diggaat encore nga dellu si toilette bi da nga am 30 minutes si toilette bi dara du ñëw tuuti tuuti nga forcé tuuti mooy ñëw muy mooy benn bi deuxième bi mooy que boo saf sa tuur ndox rek balaa nga àgg sa rek mu tuur sa kaw sa tuba bi lii mooy ñaari ku am prostate encore feebar mag la cinquante am day ci kaw lay téye ku am problème prostate bu soobee yàlla mën naa la faj incha allah bu kattan suñu borom nga tagg ak mon eh, infection pour jigéen mooy des jigéen infection daa daa tax nga am perte blanche yu bari daa tax ba am rapport sa sa borom kër ndox bi day tuur yëpp génni infection day sababu infection day sababu day dag-dag sa règle mu mu nekk donj mu mu dem bu jul fibron lii mooy infection ci jigéen infection ku jigéen ko am rek pour am doom day jafe parce que infection boo ko dégg ci jigéen mooy sa sa feebar suuf nax sa suuf nax mooy tilim ku am infection boo yàgg rek da ngay am problème règle jigéen nga xam ne règle normal pour am doom day jafe yii la ñuy faji incha allah bu ñu nit yi dégg waatam ku am feebar li la jaaxal bu sooba yàlla boo ñëw El Hadj Chérif ma Aida bu dee am naa ci yoon ci kattan yàlla dañuy la jàppale incha nga tagg moom damay ñaan sama bu ñu fajkat yi mbokk eh, sama mbokk fajkat yi ñu jàppale askan bi parce que ku feebar soldal lam ñëw si yow jaaxale moo tax ñu jàppale si nit yi ñu génn si jaaxale bi faj yi nga yóbbu sa bopp biir fajkaay moo gën nit yi yóbbu fu day fajee parce que eh, boo sant feebar nit yi bëri 80 pour cent rek da day digg ñëw du feebar doo ñëw faji yenn day ragal day seer nangam nangam sama client sax 80 pour cent day na dem na fu ne bu dee jox na la garab même pas 20 72 heures so 22 hours da ngay woo nga ne ma alhamdulilah wala nga ñëw fi nga ne am naa tane bu baax ku am feebar laa la ku jaaxale boo ñëw fii dana la xool naka la mu la jàppale incha allah ma jàppale pour nga tàgg ko sa jaaxale parce que ku am feebar jaaxale la feebar le 10 la. doomu adama ku nekka ku am bakkanam da ngaa bëgg nga am wérgu yaram incha allah la santé mooy numéro un eh, su ma ngi fi Parcelles Assainies unité 10 en face église bi boo ñëw église bi gardé boo nekk bu ndëgg la boo ko ne ay Serigne dana wan na kër gi wala miiri chapour bi fu day tambale tàmbale mooy jàkkaarloo kër gi ci kaw tale bi eh, numéro kër gi villa numéro 091 téléphone numéro mooy 77 700 96 68 68 77 796 68 68 wala 77 495 11 11 77 495 11 11. numéro mu ngi affiché écran bi ku woote incha allah mën na la tëttam bu dee yaa ngi nekk bu sori bu ñu dëggante incha allah mën na la yónnee garab bi eh, lii mooy waxtaan bi wa sallallahu nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ajmain asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh